jàpp 24actu point com ni ñu leen ko doon defalee boobaak léegi ci màggalu ko Daaru Muxti gi euh, noonu lañ koy wéyalee te ji nag ñu ngi kër Serigne Kara Sylla diwaan nekk koo xam ne ràññee nañ ko lool rawatin nag ci bis bi nga xam ne rek bis bu sell la di màggalu Daaru Muxti ginnaaw bi ñu ko nuyoo euh, dañu koy bàyyi mu nuyoo ñu koy topp ci 24actu point com ak bis yi nga xam euh, kàddu yi nga xam ne moom la fas yéene yëkkati jëmale ci màggal gi ñu ngi lay ziar ñu bàyyi ñu lay topp ci 24actu point asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ahmadou karasi la jaamub sëriñ tuba xaadim rasul euh, xam nga dañoo baaxoo maa ngi nuyu xalifa général di murit ma ne leen loolu moom duy teggin ndax sama rob ngay defanteel noonu waaye nag sañ na noo wax noo ngi ñaanal xalifa général di murit yàlla yàggal ko fi te saxal ko fi te wéral ko lépp lum naal ci yoonu sëñ tuba bi yàlla eggale ko te ànd ko ak moom ak njabootu sëñ tuba gépp di ñaanal suñ sang bu baax bi si moom soxna euh, Antaña xalifa borom daalu yàlla yàggal ko fi te saxal ko fi te barkeel ko te eggale yéeneem te ne ci ginnaawam euh, di ñaanal sama wajur euh, sëriñ Cheikh Sylla Fat Sylla Ndiaye xalifa borom diwaan yàlla yàggal ko fi te te wéral ko di ñaanal site bi mu nekk ay télé yu yu yaatu ci àdduna bi yal ko yàlla def. am na solo ci nuyoo bi eh, ñu ngi ci màggalug Daaru moo ren de ak coppeeku am na ak contexte bi mu tollool waaye terewu rek nga war a yëkkati kàddu jëmale ko ci bis beeg ni ñu koy dundale waaw xam naa contexte bi am na waaye màggal it am na ndax li ëpp solo ci àdduna bi mooy ndigal ndax defe naa ne bisu màggal bi ndigal la ko andi kon ku nii ñu ko màggalee it ndigal la kon màggal nañ ko ba noppi amaat nañ beneen ndigal buñ ci am. muy jëfe ndigal euh, muy bis boo xam ne it damaa yaakaar ne luñ ci daa am rek danañ ko ci am nun ak ñi ak ñi nga xam ne dañoo toog te ndigal tax ndax borom daaru mi nga xam ne moom lañuy ñuy màggalal daa ma sa am benn bi bu baax bu ñëw fi wetam di jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko dama laa bëgg mu ne ko waaw waaye koo bëgg bëgg na la daane ko loolu nag waxi yàlla la du sama wax ndongali ndongali ne ko waaye dama am yéene ju ma am ci yow te mënuma ko mu bëgg nga ñaanal ma ma man ko mu ne ko yàlla na nga ko man waaye nit lu mu yéene def na ko ndax yàlla yéene lay fay mu ne ko dama bëgg mbàkk it nga ñaanal ma foo geesu gis ma loo nekk ma nekk ci ak yow ci la ko borom daaru wax ne ah nit ku ne nag lam gën a bëgg la ci ëpp yàlla da ko cay natt waaye nag nit de fu xolam ne xelam ne fa man léeg-léeg sax nit nekk fi barab du fa ne ndax xolam du fa ne xelam xelam du fa ne kon yaakaar naa noo ngi daal noo ngi màggal màggal gu mel ne gan daa màggal rek ndax xool yi am solo. macha allah nga dikkal ñu ci borom daaru ci yenn kay jikkoom. borom daaru sëñ Touba sëñ Touba borom daaru ndax boo déggee may wax lool liñ bokk dafa bari waaye ñi fi njëkk borom daaru it bariwul njëkk borom daaru ci sëñ Touba ndax loolu am na waaw ah, defe naa loolu amul. ndax bi nga xamee ne egseegul jamono maa ngi koy répété waxtu bu ne moom moom borom daaru Serigne Touba am yoonum jëm di ca dox dafa toog ba mu yàgg muy yëddu soxna Faati Isa Diop mi war a indi jamono borom daal wax ci làmmiñam ne kii ndey faati yor saa borom daf maa xamal ne ma mooy sama listixaar fi ma jëm li may laaj daal ci moom la ne yàlla nee na ma su dee góor naa woote ànd ak moom su dee jigéen yàlla gàntul na ma moo tax damay wax bu fekkoon ceerno jigéen la yoon wi du am bu ñëwuloon adduna it yoon wi du am bi nga xamee ne toll na ci ñëw jamono dañoo wax ne day yëddu ak di jege soxna Faati Isa Diop ba mu déggee borom daaru ñëw jamono àddu mu dafa li mu njëkk a wax daf ne ko ndey Faati lu mu doon <laughs> xam nga ne kon bëgg a xam lu mu doon ñoroon na ko dégg naa bi mu ko nee góor la dafa toog fi suuf tut sant alhamdulilah daal di sant yàlla daal ne saa borom xamal na ma su fekkee Moussa laa mooy Sam Aaron te yàlla nee na ma kii moo may jàppale ci sama yan bi nee na su fekkee damay dem mooy sama conseil technique xoolal Thierno bi muy ànd ak Serigne Touba yàlla moo leen boole. yàlla def Thierno mat a jàng Serigne Touba dalal ko feneen fum mu mas a jàngit ci ndigalu sëriñ Touba la ba sëriñ bi indiwaat ko teg ko fi wetam di ko jàngaloo ak di ko di ko jàngal di ko jàngaloo taalibe yi waaye fu Serigne Touba mas ne booba yoon wi amagul Thierno mi ngi fi wetam toogee ca kaw ma toog ci der bi di yalwaani di indil sëñ bi. di ko yónni muy doxee ay soxlaam yittey sëñ bi ak secret sëñ bi waaye ku yàlla bind koo xam ne ci mas ngaa xam li sëriñ bi seq ak Ceerno ci secret yooyu amut muy ku dal ku dëgër ku fitu ku pas-pasu ku amuk taalibe ku bëgg sëriñ Tuubaa ku amu fit muy jëmu joo xam ne bi nga xamee ne seen wayjur wi làqu na lan la sëriñ Tuubaa wax bi ñuy miraas man de su ma amee kaamil bi barkeeloo ko ñu jox ma Ceerno doy na te boobu yoon wi amul ba tey ñu daal di ko jox Ceerno jox ko kaamil bi Ceerno nekk ab taalibeem te yoon wi amut ba mu yàgg ñëpp fekk fi Ceerno kon na moo fi njëkk moo fi mujj kon defe naa ne Ceerno sëñ Touba sëñ Touba Ceerno nun li ci sunu wàll nun ci dëkk bi man mi sant si la wala ñu sant Fall Touba nun ay Baay Fall la yoo xam ne dun dara ci dëkk bi ba ñuy tànn ku yées ci yoonu murit sax mën nañ noo jël teg dun fi nawleb kenn ñëpp nu gën ñëpp nu ñëpp nu duñu dara waaye sañ naa wax ñi ma bokkal sëriñ bi te nekk nu bokk nekk ay taalibe daal nu dolli sunu taalibe noonu ndax nu dañoo xamul lu nu war a fayee sëriñ tubaa duñ ko war a fayee lañ xamul damaa yaakaar ne benn doomu seex bu mën a fay sëriñ tubaa amul ci yoon yoonu murit ndax dangay xool boo ko bëggee nat sëriñ tubaa ngay indi teg indi wasila muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo ko indee teg xoolal fa ko Serigne Touba tegoon nekk na fi barab di tagg Mouhamadou Rasulullahi ci ab néeg boo andee kayitu xaalis Serigne Touba da lay wax tegal foofu boo andee paset dalay wax tegal foofu day mujj paset yi ay jal lay def kayit yi ay naaf lay def mu gas ba mu xóot mu suul wala mu jox naar yi wala mu jox ñeneen waaye moom du ko soxlawu waaye am na bis muy tagg Muhammad laay ba mu yàgg am benn porox ndoll bu nekk ci néeg bi di naawal kayiti Serigne Touba ci lay soog a def bërët di def nëq ci kayitu xaalis bi di def ci bën bëni néeg bi noox noox noox di ko sakk am na waaju sant mbay ju fa ne daal di muuñ mu ne ko looy muuñ mu ne ko wuuteeg yow xalaat màkke rek ci lii Serigne Touba ne ko na xam noo ci yem xalaat ndax lu ci waaye am lu mu bari bari fàtte buntu rek la koy doyee te man de bunt bi bëgg a yàq li may liggéeyal Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. benn bunt gënu maa ñor ci fatt ko nekk na fi barab moom Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Balla Jeng Faali bay ba am xaalis bu ko lew dem xotti ci ay yére day jàpp di ñaw yére yi bu njàppam tojee day jàppaat ba mbubb mi baax mu yenn ko andil ko Serigne Touba loo ko mas a jox moom Serigne bi da ciy def ndox waaye léppay wax ak moom bi mu ñëwee daa daal di sol mbubb mi ci kanam ñëpp ci mos ci lu mus ta def waaye mi ngi koy yéem ak di ñaanal sëñ bi waaye sëñ bi daa defoon fii poos ci dënn bi bi loxoom duggee fii mu ne luñ ci jublu lii am ko ne ko ah, bu doon noonu la suñ amee sunu xaalis dañ ko ciy denc daf ne sumeen mum ma ko ne taxañ taxañ taxañ dal ne xërr mum ma daal yàlla nu yàlla musal ci jiba hmm. ah jiba naa ko xol di hmm. boo ci defee dara taxaw sa digg sa borom mu yëngu leneen nekk fa lu dul sa borom yàlla na nu yàlla musal ci jiba booy nettali fi mu teg rasulullaay day bari ba mel ne añ bi li muy rëy rëy rëy boo dee xool day mel ne dañ koo sarax sëñ bi hmm. wala dañ ko ko may te ba mu koy sàkk moom bu fa ba kanam doon des fa xoolal nag nun suñu añi kër yi hmm. seex yi hmm. ba nu dajalee nun ñëpp Silla jaxate Faal Kebe li muy doy doy waar jaxate sant yu doy waar yooyu nga xam ne sant wu ne Sëriñ Tubaa defar na koo ci seen ci nun tey jii buy dox di dem nga dajeeg moom ne ko loo rafetlu di ko wuti du ko xam kenn ku ne dafa juddu rek fekk lu nit di am ci xeeti nga sëñ Tuubaa fàggul ko mu wan ginnaaw loola waaye añ bi li muy rëy rëy boo nu dajale woon wut sawara waxuma nag kaamil sawara woo xam ne dangay wut ak weñ teg tàngal ba mu tàng kenn ku ne janoog weñ gi ne ko kaay kaay mar su fekkee añ bu rëy bii ngay añ nga xam ne diwoo liggéeyoon añ bi muy dox ba egg si sa loxo ndax yow àq joo jox yàlla moo fi bàyyi añu kër maam di bi waatal ku waat lakk koo ci ndax sa pas-pas boo am sa digg ak Sëriñ Tuubaa moo fi bàyyi añu kër maam di bi kenn du waat ku waat lakk koo ci ndax sa jaamu yàlla gu mat sëkk sëkk sëkk moom la moom la la yàlla ruusee bu bàyyi fi añu kër maam di bi ku waat lakk ñi mel ne man sax def nañ lu yàq añu kër yi bu doon yàqu Sëriñ Tuubaa yor ngoram gi nëbb ci suñ goreet yi yor matam gi nëbb ci suñ manqué gi yor maaxam gi nëbb ci suñ doy waar gi kër gu ne la fa ne woon mu di ko dolli guddi di ko dolli bëccëg moo tax lu nu war a fayee Serigne nekk jaamub Serigne Touba Xaadim Rasuul. macha allah macha allah ci kàddu yu matale yooyu eh, Serigne Modou si Sylla diwaan ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ci woyof gi ak kàddu yu am solo yi nga xam ne jàngale la sant baax eh, Bamba mi nekkoon ci caméra bi ak équipe bi ñu àndaloon yëpp di leen jox daje incha allah eh, beneen jërë ngeen jëf.